Souleymane Dieng Babacar mi walaay yàlla bii de dem fenn gaan wul dem fenn moom fenn ma làkk moom moom dong ma làkk fenn aussi kër gi moom Dieng Babacar mi moom si du moom fenn moom si moom dégg walaay yàlla bii de dem fenn. moom suñu Babacar. bii. ah hmm. maam. maam maam walaay déwle. walaay ñoo dégg. ñu déglu fenn ñu la làkku dem fenn day ñëw te ba du du fenn fure fure dema dong du yaram te fenn day ñëw. ndeysaan day ñëw. ndeysaan ma ma wala lépp. ndeysaan bëgg na ci lépp bëgg na ci. ndeysaan. ñaan bi. tabaarkalla ndeysaan. jërëjëf Mbaye.